Comme de la bonne musique. Vous êtes bien sur sunooker.com, la radio Sunooker de la bonne musique. Sunooker.com, sunooker.com. Welcome to sunooker.com. directeur de société, chef d'entreprise, businessman, particulier, association, fédération, GIE, chef d'agence. Ce message vous concerne. Venez soutenir notre radio en sponsorisant nos émissions et gagner en visibilité auprès de nos 50 000 visiteurs par jour. Pour mieux communiquer avec le public ciblé, pour plus d'infos, veuillez nous contacter au 001 951 665 85 35 ou par email radio Mboki Mohamed société société nga nekk entrepreneur nga nekk chef d'entreprise rajo sunu kër ngir fësal lépp li ngay liggéey jagleel na leen espace bu yaatu ci sunu kër point com ngir rek ngeen mën a fësal seen liggéey ci ay njëg yu amul fenn moo xam ngeen yor association ngeen xewle programme bu mu mën a nekk rajo sunu kër pare na pour jàppale leen ngir rek mën a fësal li nga xamante ni moom ngeen yëngu bu ngeen bëggee fësal seeni publicité mën ngeen a woote ci 001 951 665 85 35 kon nag ñu ngi leen ciy xaar rajo sunu kër compétence indépendance et crédibilité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

781 82 04 wala sax gaa lu gën a easy doo fay dara ajuteel skype rajo sunu kër l'info autrement du fenn fudul fii si sunu kër ci kër gi kër gi la maison mooy bombu kon ngeen xam ne moom suma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëppuma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yobuma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo pour yobuma ministre ministère de l'énergie, des mines et de l'hydraulique première rentrée te amusi la lu ma laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fi bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am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 moom moo xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. waxtaan waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles ministère de l' intérieur. ma intérieur bi xaw ma lan la ko loolu day wax dëgg yàlla xam nga dafa diis parce que man technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ma daal il faut nga dem foofu parce que loolu moo gën a. Au bout d'un moo la gënal man choix avec votre soutien je suis sûr que j'ai réussi. c'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement Pour la defal lii yëpp ndax barakaatu mbokk auditeurs yi émission l'info autrement jeudi le 25 mai 2017 ma ciy di nuyu yéen ñep ku ci nek ak sa sante ak sa tour ak sa sante di leen baalu ak di leen ak di ñaan yalla bur bi Mom rabbi samawati wal ardi borom asaman ak suuf ak li nek ci diggante bi mom mi bind nit ñi ak jinne yi ak malaaka yi ak animo yi ku ci nek ak sa way mu lay provide manam di la li nga xamantene mom nga soxla pour dund ñu diko ko sant bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax bim ñu maye ñu waat benen bis euh, benen émission ñu waat fi ci sunu kër fm euh, fas fasiyene waxtane li nga xamantene mo fi wacc ci yene kay yi fasiyene fatali wante fas ku ci nek li nga xamantene mom la la yalla may ci xalaat ak ci xam-xam nga yaakar ne rafet nga jëm ko partagé ak sa yenn moroomu sénégalais donc ginnaaw bu ñu jul ñu jullee ci yonant bi jull ci sant yàlla bi mu ñu mayee ñu fekk ko ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu ñun ñëpp baal musal ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw musal ñu ci seytaane musal ñu ci beew saxal ñu ci diine l'islam yokk sunu yërmande dindi eña kenyan ak soxor bi nekk sunu xol yi te teg ñu ci yoonu l'islam maa ngi baalu ak ñëpp ndax xam nga nee nañu koor gi insha allah samedi la samedi ci ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew dem nañu ba ren ay astronaute ñoo dugg ci mbir mi avec calculation yi nga xamantene def nañ ko nenañ c'est impossible wer bi feñ tay ak suba waye nenañu suba ci aljuma ji inshallah ci aljuma ji ci ci ngone danañ ko gis avec calcul yu ñu def ndax dem nañ ba xol kañ la dem ak kañ lañu yaakar ne dina gin. motax japp nañu ne ñun fi ñu nekk fi ci amerique du nord yaakar nañu ne samedi inshallah lañuy la wéru Ah, ñu ngi leen di baalo àq nag ndax mooy doon dernière émission avant weeru koor gi ah, di leen baalu àq ci lépp lu ngeen fi mos a dégg te neexu leen wala ay idées yoo xamante ne sax rafetluwu leen ko waaye mënu leen ci dara ndax nekku leen ci côté micro bi du ngeen mën a ñëw sax weddi ñu ñu leen di forcer xay na ay wax yoo xamante ne neexu leen ñu ngi leen koy jéggulu waaw ah. ci ciy avec beaucoup d'humilité euh, di wax né même buñu amé amee chance nek du côté du micro nous savons dans notre fond intérieur que nous n'avons pas le monopole de la vérité nous le savons ça wayé chance bi ñu am nak nek ci côté micro bi da ngay dem ba nit ñi di la jàppee superstar nga dem ba nit ñi di la teg foo xamante sax yow xam nga ni fa ndax lolou fi ko tek rek moy ci magie de la nouvelle technologie de l'information amna ño xamantene li ñuy def sax dafa kémané ci ñom ndax mënuñu ko rek def nañu ne donc lu extraordinaire la alors que du dara dara dara dara dara dara du mbir yo xamantene daf la intéresser rek nga yëngatu ci yalla dimbali la ci defal la ci xéewal ay nit di la déglu fofu lañu ko tek donc ñu ngi sant bur bi yalla bu baax tay ñaan ñooñu nga xamantene fi ñu tek yalla buñu gis déception yalla buñu len décevoir yalla buñu len togn yalla buñu len merlo yalla buñu rus tamit ci sunuy jëf ah ma ngi am benn way bu ma doon waxal sax ndaysan ko xamantene sax ci mbirum radio moo ñu ci jitu lu bari duma tuddu turam parce que taguuma ko mu ne ma euh, dama dem ba nga xamantene ay nit ñoy ñew naan ma deglu nga njawar mu ne njawar ban ñu ne ko njawar su radio sulu keur de ko deglu de ko deglu vraiment gayan bi xam-xam rek lay wax neena nak du ben du ñaar du ñet ay nit ñokoy lo wax parce que dañu xamne mom ci mbirum radio la doon yëngatu te ci lay yëngatu sax neena na wax na ma déglu parce que japp nañu ne man limay wax mo ëpp solo may wax ak mom téléphone mu ma koy wax ndaysan waye ku la ëpp xam-xam rek ci lamay xamal ne ma gis nga bo nekké en public mu ne ma manako ah mu ne ma yalla mën na la ci jaara dimbali la sax nga yegg ci ay maqama yo xamul su fekke xam nga ko ndax mu ne ah mu ne da ngay nekk kay nit ñi dañu lay xol leg yow bu fekkee ne bëggulo décevoir ay nit di nga jubal soo doonoon saay saay di nga jéem a parce que foo dem dañu lay xool te dëgg la man loolu xam naa ko xamoon naa ko parce que wax naa ko ci rajo bi wataay nee naa la surtout ñi nga xamante ne ñooy wax ci mbirum l'islam gaay bu ñu leen gisee dañ leen di bëgg démystifier te pour ñu démystifier leen il faut que ñu xool ci ñoom pour gis loo xamante ne dañu leen koy xeebee ndax ñu mëna dindi démystification bobu ñu am ci nit ki nit bi ñu am ci mom dañ koy bëgg dindi ndax nit dafa soxor bu ko défé dañu lay xol nga def lo xamantene di la sétlu mën nga baña def sax lu aram wala lu ñaaw waaye boo defee lëfu yëfu nit lo xamantene ñom ñoom dañu koy def rek ñu ne ah mo ngi mëna yama ah. waye ki gis na ko fi muy ki ni motax da ngay gis na ñooñu bu ñu nekkee ci place publique dañuy sonn dañuy sonn parce que seeni seeni doxalin ak seeni toogaay dañu koy dañu koy war a defaraat te dañu koy defar dañu koy defar parce que bu nu ko defulee rek nit a ngi gis loo xamante ne du xam lan la waaye mu bëgg la comparer ak boppam moo tax ma ne ma ko ndokk yàlla ma ci yàlla dimbali ba jaar ci sama bon bon yu bari yi ma sama bakkaar yu bari yi ma sama yi may nëbbati di def yépp ma jaar ci sax bàyyi waaw sama mën a wax luddul deug geek sama katch yu metti yek dégg ak jewate beeg yep rek ma jaar ma jaar fa bayiko bon ta adopter benen informa ben benen comportement bu baax waaw motax yalla ñu yalla dimbali euh, li nga xamantene ñu ngi koy def di togn ay nit nek ci ay radio sax di togn ay nit te mënu ñoo jot ci ñun ñu ngi leen di jéggalu ci wéru koor bi képp koo xamante ne ci rajo bi mas nga fay dégg lu la neexul maa ngi lay sukk di la baalu àq di la te di baal ma nit ñëpp ñi nga xamante ne mos nañu ma attaqué jarul sax ñu may woo di ma ko wax baal naa leen bu yàgg wax naa ko maa ko maa ak sunu borom képp ku ma def lépp loo ma mën def baal naa la ko ñi ma séqal ñu war ma na seen conscience tranquille jarul ñu may balu, baal naa leen ñi ma woo too tooñ woo ma saaga ma ñi may bind ay message message di ma di ma di ma jéem a tuutal pour que ma découragé bàyyi li may def jarul ñu may baalu baal naa leen ñépp laa baal képp ko ma mosa tooñ baal naa la waaw donc ma it maa ngi sàkku ñépp ñi nga xamante ne tooñ naa leen nanu ma baal waaw di tàmbalee émission bi nag di ñaan yàlla weeru koor bii nu jëm yàlla dugal ñu ci ak jàmm te yok sunu inspiration ci jaamu yalla yok ñu ci doole ba ñu gëna sawar ci jaamu yalla parce que nee ñu ci weeru koor gi lo def rek day gëna bari ci tiyaba donc yalla ñu ci yalla saxal yalla ñu ko yalla yombalal ma ngi jot sax ben ben audio bo xamantene ben benn moko def <laughs> ci weeru koor gi ndeysaan njaay ni dañoo ragal xif <clears throat> nañu ma sama baat bi neexul dal njaayeen yi dañoo xaw a ragal xiif mu ngi mu ngi def benn audio yónnee ko nit ñi ndeysaan ci whatsapp bi di wax ne mbokk yi waa dañu leen di yëgal ne koor gi koor gi kii nañ ko quoi cancel nañu ko mooy maanaam koor gi amatul daal dafa waroon am waaye yàlla dimbali nañu ne ñëpp moom lañ doon xaar ndeysaan waaye yàlla dindi na ko quoi nee na nee na nee na bi yoon xamuñu kañ nag la koy organiser waat waaye koor gi bëtal nañ ko daal <laughs> ndeysaan am na gars xam ne dañoo am inspiration ci wàllu waaye bu doon noonu lay demee xam naa ni njaay ni dinañu kontaan waaye yàlla na nu yàlla yokk cawarte ba ñu am yéene gi bis bu nekk rek am yéene woor the next day nda te yàlla bu ñu wooree mu musal ñu soril ñu lépp li nga xamante ne daf koy tere te sawarloo ñu ci lépp loo xamante ne daf ko digle te muy joxe ay tuyaaba te baax ci ñun ñu ngi ko koy ñaan ndax moom moo ñu moom moo ñu bind te ñun xamuñu xamuñu nan la ñu def ba ñëw fii de xamuñu nan lañu créer moom yàlla moo ñuy créé ci yërmandeem indi ñu fii defal ñu ay xéewal defal ñu sensation ñuy bànneexu ci li mu ñu indil ci àdduna bi bu ñu ko tooñee yàlla nañu ko jéggal ndax matuñu waaw nañu ko jéggal lu ñu ko tooñ nañu ko jéggal waaye lépp lu ñu góor góorgóorlu ci sunu conscience xam ne dañu war a delloo njukkal yàlla bu ñu ko ko defee yàlla nañu ko fulal ba mu mën a muur sunu bàkkaar yu bon yi ak jëf yu bon yi Ah, ñi nekk ci lu ñu loo xamante ne euh, ñoom seen wàllu bopp fieruñu ci yàlla leen ci yàlla jële te teg leen ci loo xamante ne saa yu ñu xoolee seen bopp fier te fierté boobu ñu jëmale ko ci sant suñu borom waaw léegi nag dafa am lu am njariñ loo xamante ne tey dama ko bëgg a waxtaanee mais sunu xale yi lañ koy waxtaanal sunu moroomu jeunes yi euh, adduna bi léegi dafa jaxasoo aduna bi dafa jaxasoo euh, jaxasoo jaxasoo boo xamante ne ndaw yi rek la ñuy réeral te yàlla gis nga ni mu fonkee ndaw bañ na ko ba ba muy tànn yonentam yi sallallahu alayhi wa sallam da leen a tàll ci seen diggu doole a da leen tàll ci seen diggu doole la leen tànnee nga xamante ne boo leen booy wax ndaw yi doo leen ci génne mooy partie supérieure bu ñee la ndaw mooy dix huit ans ba quarante cinq ans mu fekk ñi nga xamante ne ci quarante ans la ñu toll di nekk fin génn ndaw ci mooy nekk seen diggu doole la leen tànnee malheureusement ndaw yooyu nga xamante ne moom la ñu am ci sunu réew yi nga xam ne réew yi fu mu toll nii moom la ñuy xëccoo maa ngi leen koy wax toujours ma ne leen Amérique baaxewul noonu mooy la première puissance mondiale baaxewul noonu Amérique dëkkandoom yi mu dëkkal ñu nekk au sud ci sudam bu ñu duggee ci ay réewam dañu leen di jàppee ay criminel dañu leen di takk dugal leen ci kaso delloo leen seen réew soxla nañu ay ndaw de waaye ndaw sélection lañu soxla bu fekkoon nit dafa baax du fekk koo xamante ne dëkkandoom la mu dugg sa réew nga jàpp ko takk ko delloo ko te yow at mu nekk ngay recruter ci monde bi cent cinquante mil xanaa booy bëgg sa dëkkandoo ngay gën a bëgg ndax ñoom nga bëgg a xam moom nga gën a mën a xam ndax ñoom ci 1846 la lañu jël dëkk bu tudd Californie ñu jaay la ko jaay la ko ci som boo xamante ne bu ñu la ko waxoon tey da ngay reetaan waaw ak yeneeni dëkk yoo xamante ne dañu la ko jaay te ñoom ñoo fa nekkoon majorité ñooñu kay xanaa ni leen xamee xamee loo ko kenn ndax ñoom dëkk boobu ñu la jaay tey boo fa demee ñoo fa nekk majorité waaye teewul bu ñu duggee ci seeni réew walla ñoom bu ñu nekkee ci seeni réew sax di nuru waa dëkk boobu nga xeeb leen defe ne amuñu këyit te dañuy doon ay américain juddoo fi màggee fi waaye yenn sant yi la ñuy def bu ñu demee ba yow sa dëkkandoo boobu wóoluwoo ko te taxul chaque année nga recruter ci monde bi cent cinquante mille defuloo ko ngir baax ndax jeunesse dafa am njariñ jeunesse dafa am njariñ mooy jeune jeunes yi ñooy l'espoir de demain ku la ci gën a bëri jeune rek moo la gën a rafet futur moo la gën a dëgër économie bu ëllëgee motax ñi nga xamantene ne dañoo dem ba ne bu ñu jurulee ci lañuy am lu ñu lekk ñu wàññi seeni njur wàññi nañu ay bras wàññi nañu ay bras armé wàññi nañu ay nit ñoo xamante ne ñoo leen mën a liggéeyal travailler la terre ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye amérique bu koy def dafa fàkk ne ñoom <clears throat> juratuñu

ngay compter ay jeune parmi membre de la société ay jeune yu taxaw nga xam dañuy am doole wër di la liggéeyal dafa am solo ñun nak yalla daf ñu ko may ñu am ci lu bari ndaysan ci afrique waye ci réew mi ma concerné ma gën ko xam muy sénégal mu doon ño xamante ne dañu leena xépp mu ñoon ño xam dañu leen di nax mu doon ño xam dañu leen di tital mu doon ño xamante dañu leen di wor toppatoowuñu leen ba tax na tey dañuy jël gaal yi di dee ci tali bi maa ngi ñu ngi ma yónnee benn vidéo boo xamante ne gaal bi dafa dugg ba dugg biir territoire italien ba ñu duggee ba foofu benn bato tiim leen ñu ngi leen di filmer de di leen filmer gars yi di la di ñëw di jàppandu ci affaire yi seeni bato dafa mujj suux bi muy suux waa ji koy filmer xam na ne bu continuer filme dina filmer ay nit ñu dee ñu taxaw naan leen ma piano piano eh ma piano italien yi yónnee leen ay booy lu leen sauvé mais ñu ngi toog di leen filmer gars di jàpp ci booru bato bi di di langaamu ñu mënul fay nga dégg gars yi di yuuxu te ñooñu ñëpp li ma leer mooy genn wàll gi dee nañu ndax ay nit bu ñuy noyyeewandoo ku nek ci li nga jot rek ngay japp ta fu bato dem taxaw amul su amul pied su fa nit taxawé ci suuf la jëm waji ci moment bobu la arrêté filmer bi parce que xam na ne bu continuer filmer mu ngi mu ngi mu ngi indil boppam ay problème ndax mu ngi filmer ay nit ñuy dé ñu bañ leen assister non assistance de personnes qui sont en danger ñu mu arrêté film bi foofu la daggee te maa ngi gis affaire bi di noox di dugg ci biir ndeysaan noonu lañ leen di témoigner parce que dañu leen jàpp ne leen bu ñu leen jëlee dañu leen di yóbbu tamit ci territoire di leen jox ñu lekk lañu ñu naan noonu la nit soxore mooy ñun fi ñu jëm bëgguñu ñu waaye da yóbbu rek ci ñooñu sax li nekk seen état état d'âme mënuloo ko xam ndax koo xamante ne li ngay li ngay sàññaafu dee bi nga nar a dee amoon na dee bu ko gën a proud ndax ñi nga xamante ne ñoo la xañ loolu politiquement rek waxuma sax waxuma sax une révolution jug di rey ay nit de waxuma ko ndax loolu su ma koy wax sax léegi dafay tiital nit ñi au ñu déglu fi may wax dañu may songu di wax ne damay def appel à la résurrection ndeysaan waaye loolu appel à la résurrection sax moo ko gën ndax boo yoree sa ay jeunes ñuy dem di dee ci géej gi di songu géej te géej moo mën lu dul ñoom ndax yalla buy mbugal ay peuple geej lay jël geej lay yëngal wala suuf si wala ngelaw mu bari wa moy taw bi di jóge ci kaw doon ndox mom la mom la yalla di di di nit nga dem ba koy song te politiquement su ngeen mobiliser won ci réew jéem wolu won te bi ngeen demee ba jël gal go xamantene bu noxé yeen ñëpp ngeen dé nga bëgg wolu gal gi téggu ci waaye nanguwuloo wolu sa moroomu nit boy andal ngeen xeex politiquement jële fi ñi fi nekk nga yaakaar ne soo songee géej gi boo demee oxident am na yërmande Occident faalewu leen ñaata nit ñoo dee ci biir géej gi Occident du ko sax yëgal seeni yaram te ñun bu benn avion daanoo wala benn accident am ay Occidentaux dee wala ñoom ñu def seeni yëfu reewande ba reyante seen biir sunu président yi dem di leen jooyal seeni doom nga xamante ne kon mbir mi ci ñun la léegi nag ñun des fois doo xam fooy commencer parce que léegi damay dama damay moytu di di di di di di blâmer population bi trop parce que xamuma seen état d'âme dem naa ba xam ne ci psychologie nit dina def loo xamante ne sax xamu ko fu mu toll nii ay bàyyi ma sax ñooñu tane wallahi yàlla xam na ko ndax bàyyi ma buy dee di nga gis beneen moroomu bàyyi mam di ñëw di ko porter secours gis nañ ko ay xaj di dem di sauver ay nit ay golo di dem di sauver ay nit ñukoy filmer di len ko won ndaysan fu mu toll ni, ñun nit ñu ñool ñi laay wax ni ñun africain yi ñun sénégalais yi bàyyi sax moo ñu gëm état gën état d'am ndax nit ñi buñ lay dimbali rek c'est parce que am na lu nu yaakaar dara wala pour bu nga nga tok di len gëreum rek bañ ko def waye def dara rek te yalla kese kese kese tax gaay duñu ko def wolu nit te yalla kese kese kese kese tax duñu ko def waaw duñu ko def duñu ko foowe ci leneen rek la ñuy nekk waaye duñu ko def mukk ndax bu nu ko doon def duñu gis sunu doom yi yaay yaay sax du jël alal di ko jox doomam naan ko dugal ci gaal gi dem te xamuñu lu nekk Europe pourtant fu mu toll nii dix ans yi nu génn nit ñee ngi leen di wax lan moo xew Europe Europe toj na xam nga Europe bi mu demee ba nga xamante ne da ngay séti sa mbokk sénégalais mu nek France mu lay baña welcome kërëm nga xamné kon kërëm amna lu fa nek gaay ci bar yi lañuy daj ak yow mo lay wone ne mbir mi soppeeku na gaay dañu dem ba nga xamantene suñu demee ba kenn di leen dekklo sax ci bir réew France ci ay pokos lañ leen di dekklo buñu yéwo suba lañuy génn ci pokos yi ci tali di taxawalu buñu ñu liggéeyee ba pare sax duñu dem fi ñu dëkk feneen lañuy dem ci baar yi wala ci pub yi toog waxtaan seeti ki nga xamante ne sax moo leen tane kër ñu toog fa def ko grand place ba heure tëdd jot nga xamante ne boo gëmmentoo fi ngay tëdd amul njariñ soo gëmmentoo da ngay mel ni kuy waaja dee soo gëmmentoo da ngay mel ku mandi foo teg sa bopp tëdd nelaw doo ko yëg ci lañuy ñuy doog dem tëdd ci seeni puqas yi ñëpp ñëw di leen ko nettali mais nit ñi mënuñoo gëm ne Europe tas ñi doon am seen am am wàññeeku na daanaka am am sax soo ko bëggee faw nga dugg ci ñoom yu bees yi nu créer ay ngëm-ngëm yu bees yi nu créer ci ngay dugg ñu lay doog a ràññee moo tax mënumaa fan ñu bees ñi nga xamante ne ñooy doog a génn te xamuñu par par par ban ban formule abracadabra la ñu jaare ba génn ñu bëgg leen def ay royuwaay doo ko xam te ba tey kenn du toog ñuy waxante dëgg lenn rek la ñuy seet ci nit mooy mooy alal bi mu yore alal bi mu yore waaw bu ñu demee ba am ko wala opportunité nga wan leen ko après ñu wan la ginnaaw ndax loolu rek moo leen fa andi woon mooy warante bi bi ma wax keroog sama waxtaanu keroog rek laay yeggale parce que su ma commencé benn séance du ma ko bàyyi moo ñu andi ci warante bi bi nga xamante ne moom la ñuy defante ko mu ñu ciy indi maa ngi koy wax xale bi ma ne ko gis nga parce que keroog bi may wax laaluma ko ma ne ko gis nga sëy sëy su bari si ngay wax ne moo bari ci tas ci sénégalais yi bitim réew ma ne ko lenn waralu ko lu dul pression boo xamante ne famille yi ñoo leen ko teg billahi wallahi taalaay li ci ëpp moo leen ko teg te du du dara lu dul problème financier problème financier rek mo yëngël sa yu xalé ndax ñom bëggante nañu dañuy nobante ba yegg ci di adoré wante billahi di topato wanté waaye gis nga li tax du dem moy ku gor ki dafa ñëw bitim réew ngir wut lu mu dimbalé njabotam ku jigen ki tamit wut ñëw di kowut, wut bu ko gor ki solo di liggéey ku jigen ki day solo liggéey ndax ku jigéen ki dafay bëgg a dimbali waa këram te xam nga li ci gën a dangereux mooy couple bi bu ñuy mayee du ñu mayee en tant que couple nijaay bi day woo soxna laaj ko xaalis su pare su soxna woo woo Moodu Xulle laaj ko xaalis ci ñaari même famille yi ñoo koy defante ah nijaay yeeg bàjjen yeeg umpaañ yeeg njëkk yeeg rakku jëkkër ji yeeg magu jëkkër ji te ñun nous avons une famille nucléaire danoo bari macha allah danoo bari ku ci sëy nag. famille yu ko góos ki top la famille yu ko ki top la famille yu ko ki ñoy top ku goor ki di santage ndax lolu santage la ya tak sunu sunu jigen. donc ci famille bi nga bok may ma may ma may ma sunu nijaay ñaanee xoolal rek li gëna graw sénégal so défalé papa ji tank défalo dom ji dom yi dom yi ba tay gër duñ la pap man sama papa ku ko defal ma yëg ko billahi dina la fonk ndax am nga sa bay bo demé bay defal sama bay te man defaluguma sa bay dama la wara fonk waye ñom sénégal duñu défé da ngay defal seni bay muy ñi doon sa nijaay wala seni seeni yaay ñu doon sa umpaañ wala seni seni tantak, sen ñu ñu xam yu bari yoy nga xamantene ñom ñokay wax rek koo ci defal ndayam sax mom mu ngi xaar na tank defaloo defal bi nak day nekk en continu bis boko dagge dag nga njariñ bi couple boobu nekk Europe fan lay fan lay nekkee à jour te ni famille ku jigéen ki di def la famille ku góor ki def en fait bu ñu la dul tudd rek mooy defaloo leen dara te koo ci defalul dara du la gërëm te mbokkoo bi amul xam ne loolu musiba la bu ko defee nag nga bañ ku la am na ñoo xam ne dañoo bañ ku leen a mere soo leen meree sax ñu feebar te loolu nag yàlla nattu la ci teg dama leen koy xamal ngeen mu teel a yeewu seen bopp amul kenn bu ngeen yaakaaree ni ci àdduna bi mën ngeen a fexe ba lu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam amul woon ngeen am ko ci àdduna da ngeen di nax seen bopp lépp loo xamante ne sax dang koy jéem am te yonante bi kese amoon ko soo ko jéemee da ngay fayir parce que yàlla moo bind yonante bi may ko loo xamante ne kenn du ko am ngeen ko amati ndagam moom ay mbokkam ñoo ko bokk bàyyi ci woote bu mu woote rek jëmale leen ci yàlla yen ngeen defe ne mën ngeen am alal bu tax ngeen mën jënd seen mbokk yëpp mënu la nekk mënu leen satisfaire tout le monde faaw am ño xamantene duñu leen bëgg duñu leen tolore malgré xaaliss bu bari bo xamantene da ngeen leen koy jox nit bu lay bëgg daf lay bëgg ta yalla tax bu lay mbokko da lay mbokkoo mbokk bi choisir loko yalla choisir ko ya asafurla yàlla moko ko choisir choisiru loko ko choisiru ko choisir mu gëm yalla ci yoolu fas yéene cee jaamu yalla mbokkoo ak yow waaye mbokkoo bo xamante wan wéy lay nek def ci émission damay dina fekk ma répéter def na ci émission yow ko benn socc sax boko soxla sénégal mu gis kuy jóge sénégal nga nek fo nek ci aduna bi dula may socc te ñun fi dañu soxla socc doko gis kenn bu jëloon benn socc yu rafet yoy sax yonne lako nga fonk ko ak te am na yu yeneen ak yeneen yu ko gën a yomb ah yoo xam ne c'est à titre symbolique duñu ko def nga xam ne kooku mënul bëggul mbokkoo ak yow mbokkoo chantage la fii ay nit duñu leen defal ni ngeen leen di defalee ndax yàlla deful kenn mu torox ay warante rek te ñooy tas seen famille ah ñoo koy tas surtout nag ñi nga xamante ne ñoo ci gën a sonn mooy ñi am jabaru sénégalaise ñi sénégal ak sénégalais di sey ñoo famille yoy ñoo la gëna sonn fuuf te bitim réew bañ nako ba ku jigen ci bu amé jëkëru tubab wala am jabaru tubab rek dañu lay bërgël te bëgguñu ko bo leen koy yëgël yëgal ñu la koy téré ndax duñu mëna ndax duñu mëna duñu mëna def euh, naka lañ koy waxé ay ak yoy du ça san s'applique pas san sap san s'applique pas c'est l'occident l'occidentaux l'occidental du moins ça ne s'applique pas ñom yenen lañu gëm ñom yenen lañu gëm gëmuñu yeen yi nga xamantene ay perte de temps la ay di wut ci considération ci ay nit motax dañu wara fentat suñu digënté ñu ngi tass ay famille ñu ngi worante ay di wor ay nit kenn mëna bëggatul dimbalé kenn ndax li ngay xaar toujours mooy wor bi kañ lay egsi war nañ ci réfléchir te ku nek nak mo ci wara réfléchir ndax yu nu jël sax def ko ay importance amul importance waaw am lu gëna am importance loh xamantene duñu ci xalaat légui nak bërki demb ñu ngi lañ koy waxtaane fi ci émission bi ndax président amérique dafa njëkk def ay voyage yi muy def moy génn bitim réew dem mak jóge mak dem israël juge Israël dem seeti pape bi pape François juge foofu dem Belgique racon euh, rencontré waa OTAN waa OTAN ñoom NATO la ñu koy wax waa OTAN bi ñu rencontré sax def na fa benn benn speech di leen wax ne na nuy cotiser ta ñu amee arrière nañu ko fay ndax États-Unis moo fi nekk di yenu dépense yi yi nga xamante ne te xoolal OTAN ñan ñoo fa bokk ñu dominer monde bi. ñi ci gën a am importance ba ñi ci amul importance ana ban pays noir moo ci bokk bokk ci ñi bëgg a ñoom ça veut c'est-à-dire que ni ñoom ci seen wàllu bopp li ñu bëgg mooy politiquement ñuy dominer monde bi waaye ñun amuñu yooyu de duñu ko def ñun duñu ko def ndax ñun organisme yi nu yore sax ay noir yore ko c'est pour servir l'OTAN waaw muy doon ay ay ay traité yoo xamante ne traité de défense la ñoom ci seeni biir mais li nga xamante ne moom laa ci bëggoon a souligner mooy dafa am video boo xamante ne waa yeneen laa ko seetaanee jabaru Donald Trump ndeysaan moo tax gis nga l'islam dañu ko ni ñu ko bëgg a defee du noonu am na ñoo xamante ne boo ne leen Arabie Saoudite rek ñu yuuxu bañ na ko ba bu ñu gisee bindu arab sax dañu koy jël takk ko téere defe ne alxuraan la te ay nit a fa nekk buru makka ki nga xamantene Mom ngeen di wax buru makka da amna ño xamantene japp nañu ne moy representant yalla wala moy representant l'islam ci aduna bi te dafa jité rew mo xamantene rek fa la yonente bi salallahu alayhi wa sallam nga xamantene l'islam lu bari daf ñuko téré tere ñu ne sharia lani lani la ni la ni la sharia jabaru donald trump watch. man gis jabaru bill clinton muru ci dem bu muy dem makka gis na président yu américain yu bari seen jabar muuru def ko waaye kii non seulement muuruwul dafa sol pantalon bu nice waaye buuru makka ne ko jabb loxo nuyu ko jox ko loxo nuyu ko <laughs> nga xamante ne nga xamante ne man ba ma ko gisee sama yaram dafa daw ndax sama yaram li mu dawee mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy yónni ñu ne dañoo jàkkee wala dañoo jàng jàngee fu ci àdduna bi ci dëkku naar yi nga xamante ne le système wahhabite ñoom ñoo leen ñoom ñoo leen coloni coloniser ñoom ñoo tax ñu ñëw ci sunu réew yi di xeeb sunu sëriñ si nga xamante ne ñoo tax ñu doon ay jullit ñun waa Màkka taxuñu ñu tax ñu doon jullit de sëriñ si xeex pour yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci sunu réew yi moo tax ñu doon ay jullit ñooñu kenn waru leen xeeb moo tax man dama leen a teg foo xamante ne dama man dama jéggi barrière ay murit ay tijaan ay xaadr ay laayeen man njawar job dama ko jéggi xëy na tolloon ci ay jamono de waaye jéggi naa ko parce que dama xam ne li gën am importance ca ñooñu doon ko xeex mooy l'islam ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay affaire kéemaan yooyu dama ko gëmatul parce que amul importance amul importance waaw te nit ñi ba léegi loolu la ñuy seet pour mën a xàmmee nitu yàlla nitu yàlla tey kéemaan bi gën a rëy ci nitu yàlla mu koy def mooy fonk julli fu mu la mën fekk nga julli te loolu challenge la ñëpp mënuñu ko loolu ku koy def kooko kookoy kéemaan bi xam nga lu ñuy wax kéemaan léegi moo nekkatul kéemaan kéemaan bi mooy julli jot nga bàyyi lépp li ngay def jóg julli woor jot ak lu la dal nga challenge sa yaram ndax yaram rek moy metti nga challenge sa yaram woor ak lo beuri beuri new new nga genné asaka di yërëm nit ñi di leen dimbali lolu moy kéman bi gëna reey ta man mënuma ko donc lolu jafé na dé te gisum ñi ñi ma gis ñu mën ko wuñu yërëm nit ñi ñu lay nga leen di bal ko fekk mu new doole nga dimbali ko loloy kéemaan de ndax kenn mënu ko ci jamono ju ñu toll nii ak néew ñu ko mën waaye nit ñi seen kéemaan yu ñuy seet mooy koo xamante ne moo leen di teggil julli <laughs> teggil leen woor ki leen di wax na ne maag yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo nekkoon démb loolu la gars yi di seet kéemaan da di nax seen bopp yooyu xewi na ku leen ko wax day fen ndax ñi koy def du wër di ko wax ci rajo yi ah. ku leen ko wax day fen maa leen ko wax ñun ñi leen di wax naan ku gis dem aljana ko takok man wala kuma nuyu balna na dañuy fen dañuy fen c'est des mensonges créés du lenen lenen loolu kese la té ñun nak nit ñi li nit ñi di bëgg dégg lool ñu leen di andi la parce que nitu yalla yi duñu xey di wax loolu duñu ko wax dañuy laqatu sax ngir bañ rek nit ñi tek leen fo xamantene ne na cadre nit ñu am ñu ñu mel ni dañuy dañuy challenge yàlla ñu daal di ñu ñu ñu moo tax ñuy làqatu ndeysaan seen humilité moo tax ñu doon ñuy làqatu ñoom ba tey am na ci jamono ji waaye bare wuñu léegi nag li ñu gis mooy sëriñ si dañuy créer seeni organisme wut ay caméra wut ay photo yor seeni micro yu baax ñëw di wax ma man la yàlla may lii ak lii dañu ma yónnee benn benn waay joo xamante ne xam nan nan nan la tudd mohammed el xawma lana fàtte naa tur bi bugguma ko sax jàpp parce que bugguma ko xam je ne veux pas le connaître waaw waroon nañu seet nag lan mooy vrai turam dégg naa mu bare ko topp muy dof comme rek yenn yi nga xamante ne boo demee ci murit yi di nga fa fekk sëriñ boo xamante ne loolu lay def di digge àjjana te topp li ko sëñ wax ngeen def ne sëñ Touba dafa am àjjana boo xamante ne da ngay naan sa sàngara di lekk di di lekk sa yàpp mbaam jigéen ak jigéen bu bu jekk bu nekk nga bànneexu ci même bu doonee jabaru jàmbur nga bëgg a toog rek naan jërëjëf sëñ Touba après nga dem àjjana loolu sëñ Touba àjjana boobu amu ko amu ko te rus na koo am sax bëgg ko moo tax li mu leen woo du lu du lu du du ci lu bon ci lu ci lu jafe la leen woo ci lu yomb la leen woo tamit jafe na parce que mbirum saay-saay bi ngeen di def mënu leen koo bàyyi même bu ngeen ci bokkee ne mbàkke mbàkke ngeen te mënuloo bàyyi saay-saay mbàkke mbàkke boobu nga sant la taqal nga bokk ci sëñ Tuubaa mënul nekk boo nee si nga bokk si nga sant ak sant boo mën a bokk ci senegal ki ko créé doonoon ku baax mënuloo bàyyi lu bon mënuloo bàyyi mooy xam nga mooy dafa yomb waay gars yi gars yi soyons sérieux c'est le côté animal de l'homme dafa yomb mooy dafa yomb waay c'est facile come on soyons sérieux du loo xamante ne lu difficile la li gën a jafe mooy challenge bi nga xamante ne loolu yëpp nekk fi mu leer na le am nga ko am nga ko yor nga alal ji mën nga jóge tey dem tëdd ak benn jigéen Chine jóge fa dem Malaisie dem Singapour dem feneen dellu si ci fi nga dëkkoon ci Californie yàlla may la alal ji nga mën ko nga xam ne dem nga ba yow sa mbirum maanaam mbirum njaaloo léegi c'est très facile boo duggee facebook ku la neex nga connecté ak moom dajeeg moom fu la neex yàlla may la loolu yépp nga ne duma ko def bàyyi yam ci sa jabar yor sa jabar jam ko ci bu yàggee yàlla def la walliw de fonk julli fonk wor di dimbali nit ñi nak ta yalla tax lolu moy kéemaan gi moy challenge bi lolu moy les miracles du 21e siècle ndax au 21e siècle yalla dafa yombal lepp Jigen dafa yomb Jigen bu jeune sax mo mo gëna té yomb jigen dafa yomb yalla dafa jël li difficile won lepp mu yombal ko jigen yomb alal bi boko ko dépenser ko ci la neexul yomb sangara so sétane télévision pays occidentaux yi mënuloo toog 5 minutes te publicité wuñ la sangara à à des prix dérisoires lépp a yomb dugg dugg ci naka lañ koy woy ci strip club yi dañu lay jox sax pass ne la free dañ lay pour nga dugg rek feesal strip club bi dañu lay jox pass for free ne la boo duggee jigéen bi dina la dansal dina la feccal jël yaramam teg ko sa kaw te du sol tubéy pendant cinq minutes wala dix minutes for free nga xamante ne fépp la am bëri fi fees dell nga ne doo ci dem mais kooku kooku mooy def kéemaan waaye sëriñ boobu ñu sëriñ boobu ñuy wax def ay vidéo ak ay ojo fekk un peuple boo xamante ne moo tax gis nga su ma nekkoon président de la république moo tax foofu rek laay bëgg bëgg bëgg nekkee président de la république su ma deew président de la république billahi wallahi tallahi billahi am na sëriñ su bëri soo xamante ne ci kaso bi la ñuy deewee te ay murit la ñuy doon ay tiijaan la ñuy doon ay xaadir la ñuy doon ay laayeen la doon parce que topp ñu yoonu maam ku ci woote loo woote rek ma duma la ku ci wax loo warutoo wax rek ma duma la c'est pas parce que dama bëri doole parce que parce que je protège la jeunesse je protège les jeunes te les jeunes c'est l'avenir de demain duma la bàyyi ngay pervertir une jeunesse ministre de l'intérieur sax suñ ma ko defoon ma lijjanti leen man mii billahi buñ ma defoon ministre de l'intérieur dinaa ne président de la république bi su ma fi defee dara nga dugg ci kon bëgguma sa poste da nga may bayyi prérogative yi ma yore yépp ngir jubal réew mi nga bayyi ma ma liggéey ko ay amul affaireu affaireu tarixa amul ay affaireu kii ku ci woote loo war ta woote pour pervertir la jeunesse ma punir la loolu la ñu war a def waaye benn sëriñ toog yore micro naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma feeñu ne ma moom laa doon waxal sax la wax mu ne man yonent bi maa koy digal maa lay wax lii ne la yàlla may na la weeru koor bi ma créé man yonanti bi yow soo beneen yoon bu sama bos yàlla may na la ku woor weer bi nga choisir yàlla may ko 100 pour cent weeru koor te keneen ku woor woor bi ma choisir man yàlla du ko may dara xam nga loolu xam nga say mensonge la nit ñi di ko déglu nag di ko ah naan waaw sëriñ bi moo kéemaane réew mi dafa toll foo xam ku challenge yàlla rek te dara dalu la nag parce que yalla ay jamono ñun limu ñun natto moy gaay dañu koy challenge mu leen di setan. Sen gat dina lak de waaye après à la fin la leen di yobbu à la fin à la fin la leen la di def lu mu leen di def dara du leen dal buñu waxé lool rek gaay ni i pourtant sëriñ bi yalla may nako de may nako ku challenge yalla rek gaay ne la yow ci yu ya nga nee na wu depuis 1980 rek quelque yol wàlliw bu fi ñëw rek moo la fi yónni wala xam na leen moo leen andi ay mbir yu doy waar di julli ñu lay upp te ñoo téye seeni cër yi ci jabaru jàmbur am na fi sëriñ su ko fi doon wax bariwu noñ fi te ci ay yoonu murit la ñuy nekk wala ci yeneen yoon wi ñii nag ñi nga xamante ne ñoo jiite tarixa yi te see ces punaises là di fa sorti di wax yenn langage yi ñoom ñoo leen gis nga buñu leen duma won ñu bayiko parce que ma ngi leen koy wax semaine passée gis nga li gëna graw Sénégal moy té moy liggéey bi gëna gaaw moy secteur bi dox wax naa leen ko il y a il y a une semaine juste une semaine wax naa leen ko moy mbeur yi mbeur yi ñom rek ñoy liggéey gis nga bu ngeen gisee Serigne Sos ay mbeur lañuy dem recruter gaay yi di yëkëti ñooñu lañuy duggal seeni sécurité ñooñu di leen garder moo tax lu leen neex la ñuy wax donc kenn rek moo leen mën a challenge mooy la gouvernement te gouvernement bi ku ànd ak moom du la challenge ku dajale mbooloo di ko ko jox du la wax dara ku mën a nax ay nit ba ñu topp la loo leen wax ñu def ko nga indi ko ci gouvernement bi jox leen ko ci politique ñu la wax dara mais boo ko utiliser contre ñoom ñu dal sa kaw moment boobu rek ngay gis ñu tëj ay sëriñ kaso wala menacer len ñu ragal motax serigne ci si lu nu beri doole bëri bëri mbolo ci président de la république bi lañu koy yob parce que xam nañu ne chay chay gi ni jaay koko len ko upp fof ay serigne taxaw di wax naan kuma gis dem aljana ñi ñu naan la jaa ki moy yalla ki moy yonanti bu delusi ku ci nek di nganda ngandalu te te seni rek lañuy seeni doom yi sax gëmuñu leen te ñi leen wër di garantir seen sécurité dañu leen di fay dañu leen di fay yeen xamu leen ko ñooñu ñu ci talibé yi leen gëm billahi wallahi tallahi ñoom sëriñ si parce que fu mu toll ni dañu ma tere may tudd ñenn ñi parce que su ma leen tuddee dañuy defe ne ñoom rek laay waxal te am na ñu leen gën a bon ñu siiwul bëgg a jël seen place moo tax du ma leen tudd parce que dama leen di dama leen di daaneel au profit d' mais ñoom ñi ñuy bari bari yépp Nek ci mouride yeeg ci tidiane yi di digge lo xamantene ne xam nañu ne amuñu ko ñi jité tarixa yoy ño wara lijeenti wax ak ñom waye dafa mel ni wuñu len tok di jël ay jeune di len nax legi na xam nga xañ ngay xew bis bo démé ba lo doole yeneen jeune ñew ñu fàtte la ak ma xam ma xam ay sëriñ so xamantene ay nit wan yële rek barki démb rek damay laajte benn waaju baax boo xamante ne dafa bëggoon sëñ Saaliw Mbàkke ku ko bëgg lu mu am def ko ci def ko ci liggéeyu seex Béthio bi rek ñu ne ma ñu ne ma ba mu feebaree Cheikh Béthio sax demul seeti ko te ñooñu benn rek exemple la ëpp na parce que ñooñu bi ñu nekkee jeune am entre vingt et trente di liggéey ci poor bi yore alal lu ñu am sëriñ bi wootee ñu dem jox ko ñu jënd ay nag bu ñu paree ñoom ñooy ñëw baasal sëriñ bi bàyyi seen seen njaboot ñëpp waaye bi ñu feebaree seetiwu leen sax amoon na beneen waay bu tudd Pape Diagne ba mu feebaree asalam Cheikh Béthio mosu faa toog seeti ko ñu ne ma saane saane gaañu na waaye yàlla na ko yàlla xare àjjana murit saadix la woon ñooñu nag di nga leen dañu leen di naxee ci sëriñ tuubaa dañu leen di nax xam nga man dama leen di wax ne jamono yi jamono dafa am sax murit yi dañu koy wax te dama koy yeetal xale yi ku lay wax nañu la nax ci koo gis parce que discours bi lii la dañu naan la koo gis rek am na ci lu ñu ko nax ñu nax la ci sëriñ tuubaa moo gën ñu nax la ci keneen ndax xewi na ci yoonu murit bi sëriñ Saliou Mbacke teewee jël micro bi ne leen lu dul lislaam amuma ci defar amuma ci yàq ci la naxaate ci yoonu murit xew yi ku muus te fréquenté sëñ saaliw kenn dootu la naxati ci yoonu l'islam yoon wi liggéeyal sëñ Touba la gëm ko sellal jubal moytu bakar loolu kété lañu sëñ saaliw jàngal ku lay wax leneen ak yoon bu yomb di la dëkkaloo ci moy ak ci fen ak ci sàcc alal jàmbur nga defe bu ëllëgee ni di nga dajeg sëñ tuuba yaa ngi ndax sa bopp ah yoon wi nax xewi na fi ndax doomu sëñ Touba moo ñu ne l'islam amuma ci defar amuma ci yàq ku nangu ñun nax la da ngaa ko surtout les jeunes ku ci nangu ñun nax la da ngaa ko bayyi sa nday ak sa bay xoolal sëñ Touba fi mu tek ndayam ak bayam xoolal sëñ Saliou mu ñu mujjé gis fi mu tek ndayam ak bayam nga bayyi sa nday ak sa bay toroxal leen faale len degg lo len nga jël sa alal diko jox ko xamantene ne mënalu la dara ay domam sax mënalu dara ndax bis bu nekk ñu ngi fréquenté kat yi ñu naan dañu xamul seen baay xoola seen doom yi bu ñu nekkee ci ay caaxaan dañu naan dañ ma xamul rek njureel gi njureel gee ko nax waaye yàlla dina ko yee te lu muy liggéey yépp pour kooku la malgré caaxaan bi mu nekk bis bu ëllëgee bu demee ba waa ji foo ba doyal mu jël ko teg ko ci place am yéen ñi foowul woon waa ji di leen jiite loolu ban sens la am ñaan dafa quoi ta fekk waju foko fekk mo fi dakon nan sangara foko fekk tëddee jabaru jabaru jàmbur yi top bayam la nekké buñu xeyé bayam tan ko lutax tanul talib bi fi gën bi fi gëna jubal set gëna sel. waye waaye lay jël tek ko fofu légui nak yeen ngeen nan way dafa soppeeku de mon de bu mu nekké xalé dafa liwon ab say say la mom ak bayam ayam da ngeen ci yew seeni domi gel yi ñuy génn ci tele yi ñuy def taatu neen ñoom la ñuy takk seet leen ñoom ñëpp rek ku ci nekk sa doom mu ngi doxaan koo xamante ne li ñuy bañ ci tele bi di ko wane ngeen koy xeex saa su nekk moom lay takk ñoom ñëpp nag laa wax seet leen seet leen li ma leen di wax dofu leen da ngeen di gëmm-gëmm lu rek nelawu leen mbir mi nekkul fenn nañu yeewu xam ne ñun ñëpp ay nit lañu mënuloo fee lijjanti ba lijjanti fi lu fi sëñ Tuubaa amuloon munu fo waxuma la sax ay domam ya waxuma la sax seigne Touba waaye ay domam yi wala Mam Alaaji Malik ga yu bax yi nga xamantene ne lu ne daj nañ ko ci pour andi l'islam senegal ngeen di tok ay sëriñ di len wax naan non mais senegalais moy senegalais mo ko na ngeen ma bal mën tuddu sunu dom yi dara ndax say say sosu ta bo len waxe dara ay nit delusi di protéger say say sosu. neexuñoo neexuñoo neexuñoo défendre nak, waaw neexuñoo défendre parce que fumu tolni l'islam jéem a gudd kessé la xam nga buñu démé ba ay bourou màkk jabaram yow fo xamantene dañu lay téré nga nuyu jigen so ànd ak sa jabar sax ci mbedd bi japp loxom bo moytul ñu duma la ne la eh dindil loxo dindi sa loxo bi ngay jappé sa jabar màkk bo ànd ak sa jabar sax ngeen dugg ci place boo moytul da ngay tok fele mu tok fele wala nga wane ni deug deug ki sa jabar la bu ngeen beugé dugg ci hôtel faaw ngeen wane ay certificat de mariage ñu lay téré yoy and ak jigen buru maka taxaw jabaru jàmbur mu jël loxo jox ko te nee l'islam du jox nga xamne ñun ci ay caaxaan lañu nek gis nga moo tax ñun ñi nek sénégal dañoo am sens am mam alaaji malik am mam mulai, lay am sëñ touba ñi nga xamne li ñu ñu jangal defuñu ko moñu andil ci cioro gi waye buñu ko defon don ci ndax gisuloo leen ñu ñuy prom ñuy def promotion nuyu jigéen ñu loolu dana ko fonk ñun kay taalibe yi ñooy génn doon ay saay-saay waaye ñoom tere terewuñ nañu ko bu yàgg waaye ñi nga xamante ne politique moo leen teg ci place bu ñu gisee tubaab complexé ñoom bu ñu gisee ji jabaru ñamawuñu woon nuyu jabaru Trump ñamawuñu ko ndax seeni sécurité li leen ko may américains yi ñoo ci bokk donc chef Amérique bu ñëwee indi jabaram boo nuyoo boo ko nuyoo tradition amerique moy nga nuyu jabaram motax mu nuyu ko ta mom andalawul jabaram ah. <laughs> mom andalawul jabaram aduna bi fay bëgg tukki way yi mom manqué man nak yi duma ko témoigner ba paré di nopi dé dina ci wax sama xalaat même bu yang né japp ngeen né dama juum na ngeen ci réfléchir je vous invite à une réflexion réfléchir leen ci bu ku ci réfléchir rek yalla andil la solution ku ci réfléchir rek yàlla indil la solution waaye nag duñu ci réfléchir parce que ci système de dogme système de dogme ci la ñuy dund waaw lii mën naa nekk waaw sëriñ la parce que moom Mbàkke la sant waaw moom si la sant waa ji ñëw naa la man maay man man maay Mohammed el xawma lan waaw am na lu mu tuddee boppam el Seydi el Mohammed quelque chose comme ça nee na sëriñ bu mag la yàlla li mu mayul ki muy woote sax moom lay wax ne moom may na ko ko moom ta ay jeune koy top kat ah, buy buy julli ñukoy upp ma ne ko mën nga nax nit ñi tay nga nax nit ñi waye mënu lo nax nit ñi ba faaw amna way kat bu ko waxoon you can fool some people sometimes but you cannot fool all the people all the time bu day gudd rek waye bu ëllëgé di nga tok ci su ruq ndax amna ñu ñu fi doon wowe yalla ñuy musoor ak maquillage di tiki te ci jigéen ñi rek lañu dëkk léegi dem nañu ba bàyyi yooyu ñeneen ñu doon wax yeneen i làkk naan ay lislaam tënkuma nekk ci yoon wi te léegi noppi nanu dof yi rek ñoo leen di topp ñi leen toppoon ñëpp wor nañu leen man des fois sax damay bëgg ñu may invité ci man dama bëgg xam nga koo xamante dafa bëgg ñu koy ci rajo mooy man man dama bëgg ñu may ci yeneen i parce que su wax ci rajo sunu kër dañu naan limu ko créé jité ko motax muy waxé ni len ma ñeneen challenge ma man dama bëgg ñu invité ma ci yeneeni rajo wala ci ay télé ñu challenge ma ci lay doog wax lima xam waxuma dara parce que lima man may tan lima ma neex ma wax ko mais dama bëggoon ñu invité ma ci yeneeni place comme ça ñu challenge ma ci ñi nga xamantene ne ay say say lañu ngeen len di défendre kon ngeen dégg musiba amna yo xamne sañu mako wax la yu bari la xam yu bari gëmuñu yalla gëmuñu yonante bi seen bakkan ak seen njabot lañuy ñuy liggéeyatal liggéeyaluñu kenn ñi nekk ci yoon yi sax ñu leen di tudd liggéeyaluñu leen lu leer laa leen di wax te duñu ma tontu nag maa ngi wax daaw ba ren duñu ma tontu maa ngi wax fukki at ak ñett duñu ma tontu te ci ñoom laa dëkk ndax léegi yeewu nanu xam nañu lu xew alhamdulillah loolu moy li nga xamantene tay bëggon bëggoon nuyo ko waxtaan ko ak jeune yi di len ñaanal aussi yalla yalla dimbali len parce que len yi dafa melni ni mo ci laqatu seytane mo len mom motax des fois euh, do comprendre wa atan nañu gañ seen yaay ak seen papa sax bu len ko téré ngay xam andu ñok ak sago da ngay dem ba yaakar ne sax nit ñi bo démé lek yi ñu len di jox dañu len ci defal lo xam da len di téye te loolu munuma ko weddi ndax ku leen sori rek commencé yeewu après da nga naan man maa doon def lii wala nga naan man maa doon wax lii wala man maa doon jëf lii loolu rek ngay mujj di wax billahi wallahi taala loolu rek ngay mujj di wax loolu rek yàlla nu yàlla musal nag ci seeni pexe metti na lool bu nu gisee xale yi euh, yi nga xamante ne ci la ñuy nekk bu ñu ko gisee vraiment dañuy naqari mais dañuy xam ne xëy na sax ñun jaaroon nañu ci mën na ne waaye da ngay dem ba benn moment yàlla yee la so su la yàlla yeewee nag bul noppi dangay ngay yee ñeneen man loolu laay wax nit ñi ma ne bu la yàlla xamalee dara jéem koo xamal keneen ndax yow nit day fàtte boo ko fàttee sax boo ko fàttee sax yàlla def na am na keneen koo ko waxoon ku ko mën a exploiter dañuy waxtaate lañu xam te bàyyi yëfu caaxaan yi dañ ko bàyyi di balo ak ñep di euh, jukki na quelques informations euh yo ne dafa génn ci presse bi ah, mu di euh boo bo ne ci walu politique Ousmane Sonko dina ko lëkkoo ak ki nga xamantene ne mooy Abdoul Mbaye euh, ndax ñu bari ñu ngi créer sen coalition ñom ñaar tamit créer nañu seeni coalition dañuy créer seen coalition ci élection yi euh, yi nga xamante ne euh, moom mooy moom mooy euh, moom mooy xewte jëm ci mbirum élection législative yi ci wàllu APR nag ak ak waa Benno Bokk Yaakaar dañu amoon ay problème yu bëri ku ci nekk di woote ay assemblée générale d'investiture ñi naan kii laa investir ñi naan kii léegi nag Macky Sall nee na c'est fini la récréation

waaw nee nañu nee na xeex yooyu yëpp xale yi ñoo koy def waaw loolu mooy bokk na ci li nga xamante ne aussi bëggoon naa ko ci euh, yëngu nee nañu ci année scolaire 2016 2017 il y a eu 4400 cas de grossesse à l'école te loolu xam nga fan la xew Côte d'Ivoire te lu xew Côte d'Ivoire xamal ne photocopie bi am na Sénégal maa ngi fàttaliku at yële ñu génn Sénégal waxoon nañu fi ci dëkk bi nga xamante ne Kolda rek il y avait plus de 400 jigen ñoo xamantene ay xalé yu ndaw ci école yi lañu leen doon lañu leen doon tëddee té ci ñoñu amon na ci 100 yo xamantene ne nañu ci ci ay enseignants yo xam ñom ñoy dem jangale ji ci Kolda ta di leen def yu bon euh dafa am nak ben footballeur africain charité bien ordonnée commence par soi nenañu ki nga xamantene mom modi Yaya Touré dafa offrir 75 millions CFA aux victimes de Manchester <laughs> amna ay tuwa bi contane nañu waye xana yoyu boko day def nga def ko ca Côte d'Ivoire ba nga joggé moko gën di Yaya Touré footballeur bu mak la nenañu ci victime yi nga xamantene ñom lañu ray ñu gis nga nit ñi motax nit ñi dañu rër quoi dañuy dem bañu défar len brainwash Afrique amul benn dëkk bu gëna sonu Afrique nga doon footballeur siiw yore ay millions ñu ne am nañu benn attentat boo xamante ne am na ca Manchester am na deux morts ci benn concert bu ñu fa doon organiser benn footballeur africain ñaata victime la ñu rey Côte d'Ivoire tey ci seen guerre civile bi ñoo xamante ne seen baay dundatul seen yaay dundatul ñu ngi dund ci ay pépinière ñu war leen a dundal demuñu joxe fa 75 millions boo demee dafa am lu ñuy lorñe dafa am lu ñuy lorñe en Angleterre. dafa am lu ñu soxla wut sympathie nit ñi ñu jële soixante quinze milliards millions nee na dañu koy jox ñooñu nga xamante ne ñooy victime attentat de Manchester mais c'est ridicule wala sunu africains yi dañuy nelaw dañuy nelaw dañuy nelaw ay complexe la ñu lay def nga juge ci dëkk jóge ci benn village amuloo dara nga mën football dem ba mën a football siiw rek nga dem léegi ne defe na yow tubaab nga gars yi li ma ci naqari mooy ku am xaalis rek defe ne tubaab nga dootuñu làkkati seen làkk dootuñu hang out ak seeni i mbokk ñeneen la ñuy jéem a bokk te lépp lu nu mën a def ba dugg ci benn ci beneen culture danu koy def dañu réer dañu réer man dama leen yërëm nag quoi mais nag dama leen di seetaan rek parce que ci fin bi Cooki Bandi fin bi lay lay lay neexee da leen di xool ci fin rek fin ba la ñu jëm Nigéria nag dañu fa intercepté benn cargaison d'armes boo xamante ne Turquie la jóge ay kalachnikov ay ay ay ay pistoletnikov ak ay gënnikov lu ne façon xeetu pistolet bu nekk moo nekkoon ci cargaison bi ñu yaakaaroon ne nag ñoom dañu ko indi ci seen dëkk bi rek ngir mën ko jox ñoo xamante ne ñooy taal réew yi amoon na benn benn bateau bu ne boo xamante ne dafa feesoon ay armes ñu ne ci sunu géej gi la la la la kiiwee ñu ñëw fekkatuñu fa dara te yooyu yëpp mu ngi ci réew mi te yooyu dañu ko war a enquête pour mën a xam lan mooy xew voilà euh, loolu mooy li nga xamante ne na naa ko ci euh, yokk euh, ki nga xamante ne nag benn footballeur bu mag la ñu koy wax Messi dañ koo jàpp ci fraude fiscale course course suprême bu Espagne moo ko jàpp xam nga ñoom ay milliards la ñuy defar waaye tamit dañuy nay ba nga xamee du ñu bëgg sax fay tax quoi xam nga réew moo xamante ne boo fa demee di liggéey ñu jafal la ay ay salaire plafond nga ëpp ñëpp xaalis ëpp sax président de la république bi xaalis bàyyi leen état bi jël taxe li muy yu muy dunde parce que taxe ci la état di amee doole Amérique li ko jox doole tey jii ni mooy taxe bi nit ñi fay ko am këyit di nga fay taxe ku amul këyit di nga fay taxe kuy liggéey ñu lay fay di nga fay taxe na nit ñi di fay taxe mooy joxe état doole Lalu moy li nga xamantene aussi bëggon na ko ci yokk affaire euh, tim nak andi na fi ay ciow lu bari ba Baba dara def na ci euh, vidéo di expliquer nañ gaay di woné gaay li ñu doon wedd bi ñu leen di enquête bi Macky Sall di dogu ñew da leen enquête bi ñu leen enquêté ba paré nak ñu ñew nak and ak gouvernement Macky Sall gis nañu ne li ñu ak li ñu def wuté na waaw li ñu ak li def wuté na dañuy fu mu toll ni dañuy protéger Macky Sall loolu la Baba Aïdara génne ci ay vidéo bu mu def nam euh, vidéo one two three yépp mu ciy expliquer gaa yooyu nga xamante ne li ñu waxoon yépp te weddi ko te tey ñuy ñuy camoufler di di di kii Macky Sall euh, loolu la Baba Aïdara génne euh, mu ngi ci site internet yi def naa ñëpp gis nañu ko mu ngi ci facebook bi loolu mooy li nga xamante ne moo xew léegi nag Omar Gueye nee na mu ngi expliquer ci benn sortie bu mu def mooy ministre de la paix pourquoi euh, les sénégalais ne consomment plus de poissons frais sunu géej yëpp dañu signé ay contrat ak ay réew yu mel ni chine chine rek nag lañu ci yab waaye am na ñeneen ay pays européens ñuy ñëw di napp suñu géej gi ñii pêche à explosion la ñuy def dañuy exploser dara dañuy yónnee lekk ba euh, jën yi dajaloo mu explosé jën yi dee ñu yónni ay sous ñu dem jël jël jël kii maanaam affaire bi da leen di xëmloo du ñu explosé tasaaroo waaye da leen di xamloo ñu daal di ñëw wàcc ci géej bi jël yenn yi nu mënul a jël nag day nëb di contaminer yeneen i jën ñii di utiliser ay produits yoo xamante ne day attirer jën te loolu dana koy tere ndax dafa am ay ay effet négatif ci géej gi ak ci ak ci environnement bi ak ci jën yi nga xamante ne ñoo koy consommer après moom la ñuy nappee ñii di manque loolu façon technique bu nekk dañu koy def ba tax na ñun ñi nga xamante ne ñun la yàlla mayoon géej moo tax gis nga ñun li nu yàlla may yépp ñun ñoo ko teg sunu bopp ñoo ñàkk fayda wala yàlla jëlu ko ñun yàlla dañoo may géej may ñu ñu dëkk ci littoral ne am nañu plus de 700 kilomètres de côte ñi amul géej ñëw di naq suñu géej ñi am géej sax te yàlla deful li mu def ci suñu géej gi defu ko ci seeni bos ñu ñëw di jël suñu bos tey moo tax génne nañu pétrole ñu ñëw di jël ci suñu pétrole génne nañu gaz ñoom amuñu gaz ñu ñëw di jël suñu gaz ba ñun ñi ko am sax du ñu jariñ dara dañoo ñàkk fayda ah élection Libéria nag George Weah déclaré wu na nee na dina doonaat candidat parce que tenté woon na ko en 2005 amul dara mu ñëwaat en 2011 amul dara léegi nag nee na dina ñëwaat nag nee na bii dina ñëwaat waaw muy fii li ci ëpp nag ci la plupart du temps amérique la dëkk moom george waya amérique lay nekk li ci ëpp am na ñu bëri ñuy dajeeg moom euh, surtout à new york euh, dinañu dajeeg moom waaye nee na dafa bëgg daal nekkaat candidat ci euh, ci élection présidentielle bu libéria aéroport international Blaise Diagne ñeneen dinañ ko inaugurer le 7 décembre euh, mille bi bii di ñëw directeur général bi moo ko wax chaque année ñu puusaat ko léegi nag buñ ko defee 2017 man leer na ma ne duñ ko duñ ko kii ndax dañuy bëgg ma jege mu jege 2019 pour que président bi mën cee wax dara waaye moom nee na le 7 euh, décembre prochain parce que décembre bi passé la ko defoon parce que dañoo defe ne woon élection présidentielle dina am léegi puusaat nañ ko ba décembre bii di ñëw bu jotee danañ ko puusaat euh, nee nañu nag ci rapport euh, IGE bi dafa am benn collision entre Karim Wade ak ak ak Macky Sall parce que ñi ànd ak Macky ñu ngi joxañ Karim Wade mu jëm ci mbirum Petro-Tim boobu ñu naan ay Karim Wade ko créé woon moo signé woon contrat ku ci nekk yaa ngi koy jiiñ sa morom waaye mbir mi daal li feeñ ba ñu gis ko lépp ci kaw Macky Sall la féetewu waaw luy njaaga mooy njaag ndax moo jël do eh, rakkam jox ko lépp waaw loolu mooy li nga xamante ne moo dëgg mooy dëgg te moom la ñëpp ñëpp ñëpp gis prise en charge des femmes souffrant de fistule obstétricale xam nga mooy euh, benn feebar boo xamante ne ak a bëri Sénégal surtout ci ci ci village yi mooy xale yi nga xamante ne dañu leen di maye te te mayeguñu mataguñu sëy xale yi am ay 12 ans 13 ans ci yenn culture yi ñu leen di teel a maye di bàyyi mag ñi di leen tëdde day dem ba nga xamante ne seen sawukaay ak fi nga xamante ne mooy seen euh, seeni dem demukaayu wana la ñuy bët mooy bët ba nga xamante ne xale bi dootul mënati téye parce que fi fi sa fi ngay demee wanag yàlla may na la ay muscle yoo xam ne da nga koy téye air moo fay génn air ak ak ay déchets nañu ma baal dama dama eh, dama koy bañu a tudd ndax nit ñi dañu koy dañu koy bañ a wax waaye wax naa li may li may wax gars yi xam nañu ko sooy dem wanag di dem cabinet foofu ay dese moo fay génn ak ngelaw suñu demee nag ba nga xamante ne xale yi dañu leen di tëddee seeni sawukaay bi moom euh, nga xam ne li ko li ko li ko séparé ak foofu yaram kese la ay yàpp la rek ak ay ak ay fibre yoo xamante ne moom moo koy moom mooy tax moom mooy séparé ñaari côté yooyu léegi nag foofu mooy bët bu ko defee li waroon a génn ci sa wanag wi mën na génn sa kanam ngelaw bi nga xamante ne da ko doon contrôler pour mu war a génn sa suuf mën na génnee foofu foo leen fekk nag dañuy xasaw dañuy xeeñ bu ko defee dañu leen di tëj ci ay néeg am na ñoo xamante ne dofuñu mais dañu ciy jaare dof ndax dañu lay tëj kaso par force parce que koo jege rek da ngay xeeñ te xam nga lan moo leen ko teg jël ay xale yoo xamante ne mataguñu sëy ñu sëyloo leen moom mooy indi kii boobu nga xam ne moom la ñuy wax fistule obstétrical obs obstétrical la tudd voilà fistule obsté Obstétrical. Je vais vous ci prononciation bi nga le fonds des nations unies pour la population dafa dafa le Sénégal ci loolu dafa dafa dal Sénégal C'est une défaite pour Marie Coll Eva Marie sec C'est muy défaite pour rëy ci moom ndax ministre de la santé te jigéen la te ñii feebar bi jigéen lay gën a dal chaque année il y cas yu bëri am plus de 500 cas yu ajouté ci cas yi fi amone chaque année chaque année rek mu am mu mu mu ajouté wu ci liste nenañu ci Sénégal ñi ñu ci xam mat nañu 5000 amna déjà 5000 yu existé au Sénégal non seulement dañu leen wara prendre en charge fajj leen parce que amna ay opération yu ñuy def pour fajj ko waaye ñu ngi continuer di maye xalé yi di bàyyi ñuy tëddee xalé yi. te gouvernement bi du ci wax dara motax sunu peuple sunu dëkk bi jëngal la bo bëggee di wax problème xam nga limay wax ni amna nañu ko xamul won so xeyon di wax problème sénégal bo moytuul da ngay muuma wala sa corde vocale tas yàqu lay def loolu mooy li nga xamantene euh, bëggoon naa ko ci yokk euh, condition de détention nag du maire de dakar dafa am politiciens mais directeur de l'administration pénitentiaire dit Daouda Diop que Khalifa Dakar Khalifa Sall le maire de Dakar ses conditions de détention sont les mêmes que celles de tous les détenus parce que nous ñuy des politiciens yi bokkul ak tëjee gars yi dëkk kolobaan loolu moom bu ko waxee nit ñi xam nañu du dëgg mais xëy na dafa bëgg a wax nit ñi ne rek ñëpp ñoo ko bokk te loolu du dëgg politiciens yi sambar yi ñu leen di dugal bokkul la ñeneen ñi sambar yi ñu leen di dugal loolu rek day wane ni les conditions de détention ne sont pas les mêmes c'est de la foutaise c'est pas vrai du dëgg loolu du dëgg waaye nag pour mu wan politiciens yi que ne kenn kenn kenn jëlul maanaam Eh, ay loo xamante ne du yoon ñu koy def Khalifa Sall mu bëgg a wane ne ñëpp rek ñoo yem te du ñu yem politiciens yi dañ leen di soye seen lekk dañ leen koy indil dañu leen di toppatoo ñu ciy tux cigarette ñu jënd leen cigarette di leen ko jox di leen jox ñuy am break di toog ci suufu garab gi di noppaliku am na chambre boo xamante ne ñu tëjoon ñoom Ablaye Wade ci la ñu tëjoon ñëpp te la te la ñu tëj Khalifa Sall kon loolu du dëgg détenu yi dañ leen war a boole condition ndax ñoom ñëpp def infraction ku def infraction togn loi bi nak loi bi bu koy jël daf ko wara yamale ñep mais warul am loi pour politicien ak loi ko xamantene doomu senegal kessel li moy li nga xamantene bëggon bëggoon ko ci yok ubi micro bi ci kanam legi dina dalal ben gan inshallah allah euh, ma tàmbale ci ahmadou diop waaw alaykum jawar diop alaykum salam waaw ma ngi lay sante ci sa discours bu reuy bi nga def xam nga tay la ah. waye yow pour yow feet mës am. ah tey parce que da liggéey. waaw yëgu ma ko woon sax. ah. <laughs> tey feet la. ah man de de feet fii ci France day feet la te yaakaar naa ne je sama demande sax est-ce que nekkul feet ci Sénégal. Hmm. parce que Sénégal France su ne amee feet li ma gëm de mooy Sénégal feet la tey. man de loolu laa xel mën na na ko. ah à moins que Macky changé ko te loolu gëwuma ko. ah ko woon de. mais mën na ne ah tey fait man tey lu leer la la France moom tay feet la fête la mu assomption la ah, assomption la xawma ah, voilà assomption voilà parce que non mais assomption affaire religion enfin bon voilà c'est tout <laughs> ñun ci loolu la nekk alors que bu dee tabaski fële <laughs> finalement enfin voilà <laughs> loolu doy na kii man voilà euh, li nga wax nag wax dëgg yàlla am na solo parce que dégg naa sa discours bu rëy bi nga xam ne ci nga nekk xam nga eh, ci États-Unis d'ailleurs États-Unis lan fa wax mais eh, moo xew ci France moo xew ci Grande-Bretagne moo xew ci eh, Europe suprémaciste supposé parce que effectivement États-Unis yaa ma ko gën a xam xam nga ne c'est un pays d'immigrés waaw ñoom ci loolu la ñu nekk waaye nag ñoom seen yoon nekkul ci adduna bi parce que yaakaar nañu adduna bi ñoo ko moom parce que Donald Trump moom yaakaar na ne moo jël coupe bi parce que d'ailleurs sax du moom rek moo koy def ah parce que Nicolas Sarkozy aussi ci loolu la doon wax hmm. parce que dégg nga finalement chaque année États-Unis dañuy recruter euh, cent cinquante personnes à travers le monde euh, soi-disant loterie maanaam sélective maanaam seet ñi nga xam ne mën nañoo jàng ñu indi leen maanaam dañ ci gis seen i intérêt surtout maanaam mbir mi nekkut maanaam daal affaire bëgg euh, bëgg bëgg nit te yàlla tax waaw waaw dañ koy def rek pour seeni propre intérêt waaw daanaka mooy li nga xam ne moom la France di def parce que France aussi bi Nicolas Sarkozy ñëwee ci loolu doon wax parce que euh, moom da doon wax ne aussi immigration immigration voulue maîtrisée choisie waaye nag immigration imposée la ñuy def waaw maanaam dañuy yore seen entreprise étrangère di wane ne ñoom des expatriés maanaam exceptionnels waaye l'inverse moom maanaam ñeneen ñi ay indigènes lañu maanaam les africains et les sénégalais waaw Sénégal nag moom yaakaar naa ne wax dëgg yàlla discours bi ñu ci def am na solo parce que tëkkub l'islam la waaw waaye problème bi mooy li nga wax ci affaire wu maanaam surtout la jeunesse parce que ci nga dëkk Madame Sénégal Madame ci maanaam dañuy def ci bopp nit ñi maanaam nit ñi Madame war a mentalement ci Madame substrat Madame maanaam dañuy ba dañuy ñu ay la bëgg ci la culture du fatalisme et et de l'obscurantisme voilà de sorte que la tyrannie

di ñaawlu di def dëgg national presse bi di ci wax ñu leen di indi ñu ñu décité alxot ko tiitlu et di dafa seen yoon nekku alors que contribuer maanaam amee ay tragédie télévision bi ci loolu la ñu gis nañ ko ci grande bretagne dafa xew démb ak bërki démb am waaw ñoom ci loolu lañ tey normal que ñu koy parce que muy États-Unis muy Europe sont développés où sur sur l'épaule euh, en fait de l'Afrique tout simplement dañuy nekk à des di fermer seeni frontières voilà le problème nun loolu la tor na def te nous wax dëgg yàlla la dimbali ko ay dimbali ko sun bopp wax dëgg yàlla loolu man li nga ci wax du ci am kenn lu ko ci man ma ci yokk la

Là, le problème, lolo lalu lolo duñ Waye évidemment, c'est normal que Arabie di def charia. Parce que charia, manam Arabie Saoudite ko pour défendre l'islam, presque la tout simplement pour pour pour, Arabie Saoudite tax ñoo tek bu la lolu ci dem xass ñu ma jassang ci ni manam ko xamne wax Eh, eh, ci la di def discours di def ay prêche apostasie la anam dañ leen ko diggal te comme c'est la règle générale pour les mensita arabes tàjj surgi là le problème de la planète entière loolu dañu def moom lay ñuy def ci Jordanie moom lay ñuy def ci Maroc kenn ci Angleterre moom lay ñuy def parce que ñoom ñu nekk le chef de l'église anglicane voilà le problème <laughs> loolu ci def man crit est synonyme de déstabilisation manam manam et et de la peine de mort voilà le problème manam beaucoup madame ça i la te day effectivement toutes choses égales par ailleurs autrement au Sénégal président de la République la loolu président de la République les Grecs les ko defagu waaye dans les années 35 comme je ko fi rek ci nit tout madame les koy problème mooy l'article quatre-vingt bi rek bi nga ne aussi offense la moom la di day rafetal ne anaka benn c'est tout c'est que am ñoo xam ne certaines personnes maanaam ñoo ay sëriñ lañu maanaam dañu utiliser l'islam dañoo nekk des descendants wax muy ak El Hadj Malick ak ñett ñi waaye ñett ñi day détourner les voies tracées par les créateurs de conflit maanaam ñoo ma ñu defaan mooy dañ ko def maanaam ñu am ci des ambitions personnelles ñu defaan seen i privilèges di takk jabar yu bari voilà ci ci rafet kon kaala yu rafet te li door finalement portable bi ëpp bu ca ak orchestre bi am bi moom la ñuy yor. Amadou sol solul tuuti dafa mel ni dangay ngay dafay écrasé wu. voilà parce que. Hmm. lu fatalisme la nga wax. fatalisme la nit tax waaye lu moo fi wax parce que alxuraan dafa wax ne. loolu nit toog ci Sénégal. Euh, alxuraan dafa wax ne amul lenn loo xam ne day changé sur l'état d'un pays.

fok Reug wes man daal li bëgg yomb parce que bu fekkente ne ñee dañu si type de cirque ku ne yore sa il est voit clair chemin man fokkuñu maanaam au lieu que ñu nekk benn pour fàtt saay sant bii bi nga fi ku sa ku am mais kooku maanaam kooku day tax sénégalais yi seen xel ay ci parce que sénégalais dañ naan comme yeen àndu leen kat leen fay man ko loolu laa fi gis parce que lolou buñ defee ba nga xamné wax deug yalla ñu nekk ben bloc monolithique di jubal seen suñ sénégal dana jëm ci kanam évidemment su fekkee ne Macky Sall comme ci koy waxé ena fini la création parce que mom yaakar na ne buur la parce que lepp manam mo dox lu tàggu kenn il impose sa loi par sa lâcheté parce que il utilise la force publique mais dëkk boobu ndaara rek lay mën a jël voilà le problème c'est tout te li koy prouver mooy li nga xam ne wax nga ko ci Côte d'Ivoire parce que li xew Côte d'Ivoire moo xew Sénégal moo xew pour moo xew ast euh, dégg nga moo ci Bolivia ci Cameroun ay Côte d'Ivoire moom moo jël coupe bi ak Sénégal parce que effectivement l'information bi nga xam ne dañ ko distiller des milliers euh, de jeunes femmes ñu am des grossesses non voulues mu am ci Kolda boo xam ne dafa élevé mais toute chose égale par ailleurs loolu moo am ci Sénégal waaye ce sont sujet tabou kan moo ko def pauvreté moo koy indi di baw di utiliser la jeunesse parce que justice amu fi parce que justice bi loolu yitteelu leen li leen yitteel mooy li nga xam ne mooy li nekk ci biir réew mi état bi loolu yiteelu ko état bi li muy bañ mooy bul wax ci ay mbiram waaye defal lu nekk attaquel defal euh, maanaam sexuellement maanaam euh, maanaam defal banditisme agressé nit ñi yoonam nekku ci d'ailleurs état bi nee na foofu bi ñoo ko def te gis nga li nga xam ne moom la Omar Maal wax le Maal wax na ko loolu kat la li nga xam ne nag mooy actualité internationale bi effectivement loolu aussi bokk na ci Sénégal Toutes choses na ci toute chose est par ailleurs parce que Nigeria, nee quatre hommes d'affaires plus une femme Nous billahi ñom Nous ñoñu tumuranke bi nga misère ak la pauvreté pour mettre un terme définitivement à la fin ñoñu manam ñoñu manam ñoñu alal nga parce que ci si nga xam ño fi nek muy la gérontocratie des voleurs en bande organisée muy Macky Sall mi nga xam Alloy Sall milliardaire de la dernière heure y compris Moustapha Niass Tamaru Dieng seen xaliss bobu wax dëgg yalla buñ ko dalee buñ ko dajalé won et compagnie ñom yaakar na sante dana ma fi nga dana fi am te Sénégal tumor bi dana jeex waaye xaliss bi nga xam dañ koy sàcc mi ko yobbu à l'extérieur xam nga barki démb jukki nga fi ne dafa am benn journal allemand boo xam ne dafa wax ne Macky Sall am na deux cent soixante quinze millions de dollars xoolal ma loolu loolu buñ ko wisaare woon ci réew mi euh, radiothérapie bi nga xam ne moo fi manqué ba nëgën kenn gisu ko waaye Macky day bàyyi bi nga xam ne te wóor na dana ko def ba nga xamante ne bi à un mois de cirque euh, électoraux mu indi ko di ko utiliser à des fins politiques de bas étage loolu la moom lay def manam chantage la di wane ne mi ngi liggéey maanaam dafa mel ni que moom moo ko moom ci xaalisu boppam alors que lépp loo xam ne ñu ngi ko indi ci Sénégal état du Sénégal moo ko moom voilà le problème buñu demee ba nga xam ne seen suñu Sénégal gi pétrole am fi lépp am fi poisson am fi géej gi lépp yaatu Sénégalais yi sax léegi mënatuñoo lekk jën wu baax chalutier yi nga xam ne la pêche industrielle moo fi nekk ñu aaki moo lépp Sénégal nga xam ne nekk ci tumuranke parce que euh, maanaam dañuy maanaam dañuy addu kalpe voilà le problème loolu la xam nga dëkk yi am fayda euh, mais évidemment parce que Sénégal loolu moo fi am <laughs> mais d'ailleurs sax ñoom Moustapha Niass ak ñoom Tanor Dieng licence pétrole boobu silence rajo kenn du ci wax chinois yi kañ mu leen joxoon ay passeport sénégalais parce que am na chinois yoo xam ne ay sénégalais la ñu léegi voilà problème surtout léegi nag effectivement jukki nga ne finalement Euh, euh, aéroport international Blaise Diagne inauguré euh, certainement le 7 décembre 2017 ma ne ko man gawma ci dara laa ci gëm fifteen gawma ko ci li wor moy lenn man de 2019 la gëm wa c'est ça parce que Macky Sall li tax mu koy avancer parce que bis bu yàgg c'est c'est pas la première fois muy avancé ay ay ay date koo xam ne ngay randal c'est ça même les législatives yi man de wóorut sax na dana am pour man wóorut parce que Macky Sall su ko wóoree na dana am day taw mu wóor ko ne maanaam day taw mu ne reporté na ko c'est tout parce que xam na li ko ci fekk c'est tout problème léegi nag parce que bu demee ba nga xam ne dëkk boo xam ne santé amu fa wér-gu-yaram amu fa ndox mi dafa am plomb surtout jigéen ñi mais jigéen moo nekk l'avenir du monde su fekkee ne bi ñooñu amuñu wér-gu-yaram dëkk boobu fan la jëm kon xanaa kon mooy li nga xam ne Macky Sall ci la nekk ndax ñoom dañuy copier li nga xam ne moom la leen di bi ji dégg nga moom la leen di jiital comme ça ñu li ñu limiter eh, maanaam les naissances maanaam ce que j'appelle ce qu'on appelle par exemple euh, euh, euh la politique malthusienne c'est tout voilà loolu la maanaam bëgg a wàññi nga xam ne kenn du fi kenn du fi juru doom alors que Chine

parce que Karim Wade bu ñu fàtte ne bi nga xamante ne bi ni dañ koo tëj ci kaso bi eh, mbedd moomu nga xam ne finalement fa la procureur Aliou Ndao doon doxe mbedd moomu dañ ko doon privatiser di ko tere nit ñi ñuy conditionné naan Karim Wade telle personne ñoo les recevoir réduire considérable considérablement le nombre de personnes voilà le problème loolu lan lay te Khalifa Sall bu fekkente ni bi dañ koo teg ne dafa sàcc xawma lan dégg nga ay millions wala ay milliards li fi à moi, la justice devait tout simplement di agir à double standard selon la position des uns et des autres boo ñëwee ci affaire kenn du le tëj te xam ngeen ne wax dëgg yàlla Macky Sall bu fekkente ne bi ne dafa bëggoon doxal dëgg évidemment day set ñi nga xam ñoo nek ci affaire nga xam dañoo trans dañoo def transvasement transhumance total te ñooñu dañoo takk rep ay alpulaar bon ay multimilliardaires ñoo ci nekk waaye Macky Sall defu ko kon bu ñu tàngal ni ñi naan voilà condition bi précisé naan voilà condition de détention de Khalifa Sall non nangam ak nangam dafa war a ñëmale li yëpp ma ne bu newoon ci démocratie Macky Sall ak son clan dañuy nekk les voisins immédiats de Khalifa Sall c'est ça la vérité njawal voilà le problème loolu la ñu def parce que dëkk bi dëgg amul fi c'est la justice de Macky Sall tout simplement voilà mooy mooy seet ku ku muy ak ku tëj Macky Sall c'est le seul procureur de la République di voyou et des dégg nga et des et des bandits c'est tout c'est le chef des délinquants c'est tout amul leneen te li may terminer mooy billaahi ma tàyyit ko ku neex na ku weddi li may waaye li wóor mooy lenn billaahi tant que le Sénégal sunu Sénégal gii jëlewu fi la constitution moribonde boo xam ne dans laquelle le président de la République est juge et partie loolu moo nekk le personnage central boo xam ne moo décidé tout ce in fine à la place de tout le monde billahi ak ko mun dañkat là le problème il faut que ñu utiliser yi nga xam ne moom la dëkk yi am fayda def bu ñu ko deful ñu dem waaye ñi xam ne ñoon ñooy candidat sax duñ ci parce que dañ ci bëgg a bànneexu

il fait preuve de moult trahison voilà pays du Sénégal Sénégal ay une parce que ay nous ko eh, ba nga Sénégal dafa Sénégal émergent Sénégal émergent nous une Sénégal émergent nous c'est télécommunication Sénégal émergent nous xam les l'économie sénégalaise totalement extravertie

partenariat sur des bases et pays les mu seet li nga xam ne moo jëriñam mu def ko waaye mag yi ci def parce que mag yi def base te dëkk boobu mënut a jëm fenn ndax dëkk yi nga xam ne ñoo am faj absolument dañuy nationaliser toutes les ressources duñu tàggu kenn waaye dañuy nationaliser toutes les entreprises étrangères yi nga xam ne ñooy opérer ci seen i gis nañ ko dëkk yëpp su ñu xam nañ aw kenn du leen ci suuf tey kenn du leen ci biir ëllëg te ku ñu du ñu suñu ba laa yow di ne accord de défense yoo xam ne day nekk un prolongement du colonialisme de ma ne léegi ñëw dox waaye koy dëkk metti jariñ yooyu David dafa am loo ci bëgg a yokk waaw da ngeen def waay alhamdulilah bien euh, njawar ah. la croyance et la foi hmm. définition bu di sur le mot la foi hmm. ma ko adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse hmm. à une croyance religieuse littérature ñu c'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse Manam loo digee da nga ciy sa bakkan pour jëf ko ñun nag on a de la croyance gëm nañu waye amuñu foi gëm nañu né yalla amna dé gëm nañu né mën nañu jox nañu lu mu ñu war jox waaye gëmuñu ko hmm. du moins dépassé wuñu lu mu ñu digal waa lu waral loolu mais parce que tey dans le milieu philosophico-religieux uh-huh. nit ci lu ñuy waxtaan mooy lan nee nañu aduna bi ñuy dund tay di ni du aduna wu yalla mais aduna seytane la seytaane moo yore aduna fu mu ne ni parce que soo liiree so jange lu ñu wax ci lu yalla dégal dég dég dég nit da nga war suñu maamaati maam mi doon wax nit da nga war parce que loolu mooy résumé religion yépp mooy nit da nga war rafet c'est le règne du beau du vrai hmm. et du juste wallaay beau hmm. mooy am toogaay bu rafet hmm. vrai mooy lu tëgg tëggu maanaam soo amee tolof tolof nga xaat yore sa xel lijjanti ko sans gaañ sa boroomu nit taxawul si sa nit le juste mooy ngay seede lu baax di àtte lu baax wallaay loolu sore nañ ko kon ça veut dire que tey fu mu ne nii hmm. yàlla moo nekk suñu biir seytaane moo nekk suñu biir hmm. moo tax nga mën gis kenn kuy ñëw naan la moom sëtu la sëtu benn borom xam-xam la woon bu mag hmm. waaye lépp lu ñuy laaj ci kilifa diine wala nit ci boppam nit rek nit ordinaire hmm. lu mu war am muy ñett yooñ hmm. le beau le juste et le vrai nekkul ci moom donc nekkuñu ci monde boo xamante ni tey àdduna boo xamante ni. Hmm. soo xoolee nit yi ñuy jëflante. Hmm. di soxor nit yi nu ñuy ñëwee gis dara bokk aakimoo yëpp bàyyi ñeneen ñi. Hmm. ñoom ñu aakimoo yëpp ba pare nag nekk ay walaakaana rek wër leen. ñu kon ci loolu. gëm naa ne yàlla màgg na màgg boo xamante nit bu mu defar hmm. gëm naa ne baax rek la dugal fi moom wallaahi waaye gëm naa ne nit boobu mu defar waaw am na ku ko détourné te suñuy xool war nga xam tuuti histoire Prométhée boobu mu ne dafay jël safara bi dam défier yàlla ci loolu la ñu nekk xam nga wurus day tàkk ni safara mm-hmm. te wurus foo ko gis mu attiré sa bët wallaay noonu la xaalis mi ne ne mel tey mm. li ci jar na jaral na leen ñu rey seen seen waa kër rey seen pour xaalis jaral na leen ñu jaay seen mbokk pour xaalis mm-hmm. parce que tay ji ni di bayyi xalé yi di dugg ci geej gi di dem moy yaang leen di jaay parce que ñu ñuy dem di fay pour ñu yóbbu leen dañ leen di fay xaaliss bu demee ñu jàpp leen di leen jaay comme suñu maag yi ñu leen doon jaayé wallahi xam nga nak nit su fekké ne sa amo xel do di fatali fàttaliku dem deug la sa tay mënul neex sa suba mënul neex hmm. parce que li nga mos a dund su fekkee ne da nga mos dund lu naqadi hmm. sa àdduna yëpp da nga war xeex pour bañ ko dundaat hmm. ñun dañ nekk si tolof tolof ñu jaay ñu tey ñun ñooy dem di jaay suñu bopp mooy soo xoolee ñu naan par exemple Nigéria juróomi milliardaire mm. mën nañu génn dëkk bi ci tolof tolof mm. soo xoolee milliardaire yooyu lu ñuy investir à l'étranger ak li ñuy yóotu ci étranger bi mm. Dangote par exemple mi ngi xeex lu mu mën ci alalam pour jënd équipe bu Chelsea mos naa ko liir ci nekk loolu yëpp pour won tubaab bi nek man legui mën na wallahi wallahi wallahi alors que. Mm. su fekkoon dafa jël équipe pour nigeria ci bopam nek man maa fay financer de A à Z mu dugg dans les compétitions internationales. Mm. loolu gënoon ëpp njëriñ. tuuf. waaye on est dans un rapport de séduction dañu bëgg gëmloo tubaab bi nek ñun ñoo ñun ak ñoma a tolloo. ñoo bokk ñoo bokk culture. ci ñom lañu ñu bokk. te tubaab bi ndara rek la mën a respecté maa ngi fi depuis vingt six ans tubaab bi dara rek la la mën a respecté mm-hmm. mm. mooy soo ñëwee wax la benn baat nga tegal ko ci fukk mm. mu ñëw bëgg la jënd nga ne ko man duñ ma jaay mm. mu ñëw nga wax ko baaxu maamam yi

foo mënti dem ci àdduna duñ la yab waaye xam nga soo jalgatee hmm. nga jël sa alal bi nga jalgati yóbbu ko bitim réew hmm. bitim réew boobu ñëw ne la lii may jaay foofu nga jën nga ko munoo bañ wallaay doo bañ loolooy indi suñuy contradiction wu élite yi hmm. parce que dañu jël du ñu am le plus cher lu gën si ñun ñu mm-hmm. dem dénk leen ko mm-hmm. japonais yeeg chinois yi ba tey mm-hmm. tey ji nii ñuy wax japonais su demee Chine day réglé parce que su defee lu mu warul def chinois bi ne ko yow sa maam yi du ñu def sama maam yi fàtte wuñu ko ba léegi waaye ñun dañu baalaate nyounou bal nyounou mhm. len di dounel amnen den imaj pou mwaz git si internet li den mhm. karikaturist euh, mhm. esko mwou detine den gal pou fesak ay mwou tunoun mu dessiner continent africain dessiner europe gaal bi di dem europe ah mu dessiner ci geej gi ay ji khalis yu joge afrique di dem europe suñu rakk iye, suñu doom yi suñu mag yi hmm. yuy xeex naan ñu ngi bëgg a Mm. wax ko sa introduction bi. ni nekkoon nekkatu fi. wallaay nekkatu fi. te li fi nekkoon sax ñun bokkuñu si woon. Mm-hmm. ñu maam yu njëkk a immigré ñëw fii. Mm. luñ doon jot. Mm. suñ ko yóbboo suñu dëkk xaalis bu bari la waaye fii fii du fi dara. wallaay du fi dara. lu ñu mën a géej suñu dëkk moo ëpp fukki yoon luñ fi mën a jëlee fii. amoo dara loo fi liggéey loo xam ne di nga ko mën denc fii tey loo fi gañe lekk ko fi mais soo taalee télévision afrique hmm. parce que man afrique laay wax parce que loo gis sénégal mi ngi si yeneen dëkk yi wallaay donc amul différence hmm. nga war wax ne naka la ñu mën a def 50 cinquante trois dëkk yu nekk ci benn continent te problème bu boo gis au nord soo demee dans le sud fekk ko fa problème boo gis à l'est soo ñëwee à l'ouest gis ko fa nga war toog ne waa mais lu tax mu nees nii est-ce que si ñun la est-ce que si ñeneen ñi est-ce que si suñuy njiit la

suta hawe commencé tëb su tëbee dem nampa su nampee ba commencé mën a su gisee yaayam di di di di yëy ngooñ bi mu ñew yëy ngooñ bi di mom du hmm. dem di yëy xeer ñun nak dañuy judd nga gis sa papa ak sa yaay di lek mburu hmm. wala di lek cere cere sax mo gëna bokk ak suñu aadam hmm. yow nga dem ne non damay lekk blé hmm. te blé boobu doo ko béy hmm. blé boobu dañ la koy indil jox la ko pour nga koy lekk parce que fii mënatuñ ko fay jaay hmm. nga nangu ko nga nekk ministre de la santé ñu lay dégg ngay wax ne que population mondiale bi dafa ëpp foog ñu wàññi non population du Sénégal kay la wax waaw mooy monde bi rek. ah indirectement. donc nga xam ne ñu nekk seen ginnaaw ñoom ñu leen tax ñu fal leen fu ñu toog ñoom. Hmm. ci seen projet la ñuy liggéey mais liggéeyu suñu projet population. Hmm. te lu xew suñu réew ñun fii moom moo xew fii tey. nuñ ñu nuñ ñu suuxalee tey ji nii France système médical système couverture sociale bu mu am amul fenn au monde ñëpp a ngi koy critiquer waaye ñëpp bëggoon nañ ko am nga faju nga feebar dem ñu faj la nga jël sa ordonnance dem hôpital dem pharmacie ñu jox la say garab nga jël dugal sa poste te doo génne dërëm parce que loolu yëpp dañuy jël ci impôts yi dañuy jël ci taxe yi dugal ko ci caisse de sécurité sociale pour mu mën a aar doomu aadama yi tey yàlla may ñu am ay richesse naturelle yoo xam ne waroon nañ ko mën a profiter ba mën a teg une classe une situation de sécurité sociale boo xam ne nit ci dinañu mën a nit ci dinañu mën a dinañu mën a dinañu mëna euh dinañu mën a faju dinañu mëna lek hein ah correctement ñu daal di ñëw si les neuropsychologues le cerveau fonctionne en créant des états de conscience différenciés manam moy so jëlee sa xel sa yo togué dina am état boo xam ne fa ngay nekk mais su fekkee ne yow saa yoo état bi nga mën a nekk mooy état wu xiif mooy état wu naka laa mën a def ba dundal sama njaboot donc sa xel mënatul xalaat leneen lu naka ngay amee looy lekk donc munoo toog sax ba xalaat ne man ñi ma jiite ñoom ñoom ma war aar parce que sa xel am waccaloo place boo xamante ni dina ko mën xalaat donc da nga naan lu la dal da ngay daal di tëpp ne li ma dal yàlla moo ma ko teg moo tax ñu doon wax ne que la religion est l'opium du peuple dañu siy sëgga ba màndi pour mën a confronter wu ak problème yi donc ça veut dire que le problème il est très très très très profond te gëm naa ne que gëm naa ne ka hmm. wax bi rek warul ci doy wax bi rek warul ci doy Europe lu muy tëjee seen frontière nii hmm. parce que dañu ne souvent yàlla suy defar day mel ni luy yàq gëm naa ne lu ñuy teg seen frontière nii hmm. mënul lu dul jërul ñu lu baax ñun loolu lu baax rek lu ñu mën a jural

tay ji nii bokk ñu doon euh, génération bu nekkoon France di gouverner fan lañ leen former oh. Amérique c'était des jeunes leaders ñoom ñëpp ñoom François Hollande ñoom Nicolas Sarkozy ñoom ñëpp pour ñu ñëw liggéeyal Amérique fii France hmm. su fekkee ne dëkk bu ñu noot ñun dafa am ku ko noot ah kon nga xam ne ñun suñu xeex rëy na de lu ñu war xeex rëy na lool trop mais on n'en a pas conscience dama yónnee ay texto démb samay waay ne leen am na pétition bu nekk ci internet bi pour recouvrer les avoirs pétroliers du Sénégal mmh. xam nga loolu nit ku normal bu ñu la ko war yónnee mmh. nga war dugg biir mm-hmm. soo munee signé nga signé mm-hmm. xam nga loolu amul benn manipulation bu si mën a am wallaay wallaay parce que da ngay dem pour jéem a récupérer sa alal mm-hmm. mais am na ñu ma si ne moytul ñu lay manipuler dañ lay manipuler gëmuñu ko am na ñoo xam ne soo leen waxee waxu pétrole bi mais gëmuñu ko kon ça veut dire que ñooñu gëmuñu ne loolu am na que loolu mën na leen génne ci seen situation bu metti te ñoo mooy ça veut gëmuñu yàlla. ñooñoo ëpp ci population bi nag. moo tax liggéey bi metti xam nga su fekkee ne yàlla daf la may dara loo xam ne mën nga ci suturlu. yow nga ne loolu na jëriñ ñeneen. wallaay mais ça yow ñemew gëmoo yàlla. wala sama yoon newu ci parce que jox na la lu mu la li dundal nga ne ko na ko keneen ñëw jël man maa ngi wutil feneen laay day man de ku ma ñëw di ma may lu ma lekk dinaa ko jël lekk ko ba pare gërëm la waaye daf ñu may lu ñu war lekk lu ñu war dund tedd féex suñu xel libre ñu mën a xalaat leneen mm. Mm. ñu gedd ko ñu ne ko déedéet. bëgguñu ko bëgguñu parce que lii musiba la. wallaay wallaay wallaay. donc ça veut dire que ñoom gëmuñu yàlla. Hmm, doo da waar de. te gisuñu lu leen yàlla teg. Hmm. jërëjëf gisuñu lu leen yàlla teg. jërëjëf David. am nga am nga am na am na benn moom lay tëjee. am na benn euh, scientifique. Hmm. bu tuddoon Henri Poincaré. ou Pierre Marie Curie et euh, Pierre Poincaré. Momo mhm. Bindon bindon livre bu de science et méthode. Mhm. science et méthode. Mhm. mosuñu ko édité. 1908 le coup Bindon. Mounais, je cite avec la logique nous démontrons avec l'intuition nous inventons.

Euh, def naa foofu la ñuy ñëw yemale waxtaan wi euh, di baalu àq ñëpp euh, xam naa sama gan bi sax daf ma yeex a tontu mais comme que émission bi li ci desoon bariwul dinaa ko woo léegi bu ko defee ñu mën ko dugal ci émission samedi bi bu ko defee samedi bi ñu daal di mën a def ak moom émission ci weeru koor gi tamit def naa ñu continuer émission bi incha allah di ko def comme ni ñu koy defee rek altine ak alxames di éviter nak ay euh, mbokk yu bari yu bëgg bokk ci émission bu soobu yàlla di waxtaan ak ñoom di balu ak ñëpp képp koo xamante ne dégg nga fi lu la jariñ nga partage ko ak ñeneen ku fi dégg loo xamante ne nag la ñu ngi lay jégalu di la balu ak te di leen jox dox daje incha allah euh, beneen euh, beneen yoon ci beneen émission l'info autrement muy altine bii di ñëw bu soobu yàlla jërë ngeen jëf se nikarla ndax di Sénégal suñu réew ah ah lu suñu réew kanam loolu mooy ministre d'État, parce que ça anoblit comme ça tu vas premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo aussi dañ ko wara léral pour l'histoire keroog assemblée nationale pour gisé ñu def li ñu def dañu bëggoon woné né tay assemblée bi sa assemblée les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique. Et c'est à l'unanimité.